<laughs> alors euh, dañuy euh, dañuy dañuy fekki euh, sama yaay mu ngi toog yaay. booy yaay kasumaay. kasumay képp. bu mu suumay. kato boolo. yaay xam nga lu ma faako li wax léegi. ah Iñaa Omey. Iñaa Omey. ma ne ko Iñaa mu ngi toog studio 22. <laughs> Iñaa kooku Mbo. mais kato booloo faako eh. lii kasumay kasumay ceeb kato booloo kok boo kato sindo kok boo eh. xam nga nag euh, Baye Cheikh yaay waaw xam nga ni nag man Ziguinchor laa bokk de ah fa nga bokk yaay fa laa juddoo yaay yow de yaay international Ziguinchor laa juddoo <laughs> yaay noo gisee sama koddaay non lii lii dara fayu ko man da ngeen ma newoon indil ma def benn ah waaw lii dara fayu ko mën naa nekk yaay dara fayu ko faako lii oui ñu ngi lay euh, supporter bu baax merci beaucoup di la encourager c'est gentil xam nga lii yëpp sigil fi nga jugee la c'est très important la la xam nga fonk sa cosaan lu am mhm. solo la dëgg kontaan nañu ñu ngi lay suivre boobu ba léegi merci ci li ngay def yëpp boole nga euh, authenticité mhm. ak doom bu doy waar mhm. merci beaucoup kontaan nañu te toujours rek looy def yaa ngi euh, kii région du sud dëgg la loolu kontaan nañ ci man falaa bokk maa ngi lay ndokkale bu baax a baax merci beaucoup di ndokkale képp koo xamante ne toog na fa bijou exciders sama mado madame Ndiaye oui ma ah, ak ak euh, sama sama beneen sët Baye Seex nag yaay bàyyi seex léegi de man damay ragal wax ne. waxal yaay waxal loo xam de. ah Mado Mado Mado waxal loo xam maa ko gën a fiir. sa maam la yaay man mi bàyyi ñëpp man mi bàyyi dama jaxate. ah bàyyi saw. waaw bàyyi Fatou Bayo. waaw Mariama Bayo. waaw Fatou Kourou. waaw Kiné Diop. waaw Khady Gueye. ñooñu ñëpp bàyyi sama yaay yëpp ndey soxna mbuub sax dama ko bàyyi. jàpp la ñëwal ñëwal kon. man mi bàyyi ma jàpp ci yow. yii nañ defante. ah yaay waxal nag. Mado Mado ah, Mado Mado il faut nga comprendre. maman ñi mu bàyyi bare na nangu naa waaw waaw waaw Baye laaj ma foo tëdd. waaw fii nga tëdd. fan ah, ah, ah fii nga tëdd. fii nga tëdd ma xam ah. yaay. alors tey euh, tey euh, tey euh, balaa nga ñuy wax thème bi ñëw ah. damay dem ñu xool alfi waaw comme yow da nga bëgg a cuisine am mais cookies ak yi muy baax na de comme ci cookies yi. mais yi muy def wii maman Alfi xam nga jigéen. dañ daan defe ni jigéen ñi taaru mën a kay yooyu mënuñu waañ. Ah. dëgg la waaye fu mu nekk nii indi nga tuus bu bees. Ah, tàq Alfi daal man daal ñàkk la fréquenté erreur la. <laughs> donc ah. yaay gis nga. waaw togg na cookies ba mu pare. ah euh, je pense que di dinañ am tuuti. waaw mais euh, dañu la koy indil directement fi nga nekk. ah foofu studio 42. ah comme ça nga xool li mu togg en direct ci Yeewu Leen. xoolal xoolal yu baax yi. ah oui. ma ne Alfi. oui maman yàgg amiin waay amiin bëgg naa nekk sa goro. amiin am nga yéen am nga teggin te mën nga waaj. mais goro tubaab la am de. ah ah <laughs> ma ca Perpignan. <laughs> laaw la cat mbokk ndeyam Marie Emmanuel ak Michel. mbokk ndeyam. mi meññ Jean Paul. mbokk ndeyam mi ñu canonisé Bic. mbokk ndeyam. Jean Paul ak Marie Hélène. alo yaay ñu ngi lay yónnee tout de suite cookies yi comme ça nga apprécier tu restes avec nous ah. kontaan naa a donne ça ta à ta fille bi ngay fooxal rek bijou. on est ensemble. et t'amènes ça tout de suite. bijou voilà eh, <laughs> il est il est il est il est il est 10h59 ah. non tu sais bijou balaa muy ñëw mu <laughs> <laughs> donc elle te rejoint tout de suite. ok ok elle te rejoint tout album qui est disponible actuellement dans les bacs. album boo xamante ni actuellement mu ngi def tour du monde ah. voilà euh, a plein de gens yoo xamante ni euh, dañ lay apprécier je sais pas am na ay réseau fans. Mhm. ah euh, comment il peut faire nu ñu connecté au pour quand même di discuter. Mhm. et puis di am say programme spectacle. voilà maa ngi si Facebook bi. Ah. Euh, di ah. pour commencer. et après mois de décembre incha allah si kàttanu yàlla. incha allah bëgg nañoo tëgg Sorano incha allah. Sorano ci mois de décembre. alors je te promets que. Mhm. télévision Futurs Médias Dia ci bëgg aada ci bëgg cosaan mhm. ak ci bëgg culture sénégalaise dinañ mhm. ci àndandoo ak yow def ci li ñu war yëpp merci beaucoup voilà gentil. on est très content moi je rappelle que sama xarit la a part à part lii yëpp sama sama xarit personnel mhm. ah, damay damay damay yi hôtel am damay week yi bu ma namee lu baax rek dama ko yow wax ko lu baax te mën naa ko yow <laughs> waaye su ma bëggee <laughs> naa ko tim yaata kunda <laughs> aw ba jóg rëbu voilà donc album bi disponible na euh, ci ci ci bac yi ku ne mën na koo am voilà exactement en tout cas merci beaucoup et que aussi tam le fait que ça ngeen permettre ñu encore euh, ñu wane ma wane suñu maanaam ñu wane suñu culture parce que tam looloo fi manqué au niveau du Sénégal en fait dañuy montrer moins yeneen culture yi xam nga ni ñu ñuy vokki euh, ñuy concentré aussi benn musique et c'est dommage quoi en fait malheureusement mais en tout cas merci beaucoup aujourd'hui mais yaa ngi ànd groupe waaw n'est-ce pas exact ñii ñii il faut que ñu gërëm <laughs> Mimi. Mimi Bodia. voilà eh, dégg nga Mimi Bodia ak. mais voilà maa ngi leen di bàyyi ñu ñu présenté wu voilà. ok Mimi Sagna. Uh-huh. ak. Vieux Diame. ah. mais Moussa. Sadibou Bodia. Agnès Bassène. Siaka Badji. Siaka Badji. oh. bijou est-ce que yegg nga balaa ñuy tàggoo ñu xool euh, ndax euh, maman jot na ci cookies yi parce que yow wóoluwuma la ci ay affaire lekk ah. <laughs> wóoluwuma la ci dara juste rappeler que ñu ngi gërëm ñëpp demain on revient encore à partir de 7 heures euh, ci yeewu leen bi li mooy yeewu leen nag ah yi nga bi nga xamante ni moo leen di ye tout le temps alors yaay jot nga sa yëf. Pape ton bés <laughs> yaay tuuti la indi <laughs> la indi. appétit. <laughs> bon appétit maman. plat bi plat bi ëpp na ci man de. waaw jël rek yaa ko moom. dencaleen sa doom waaye ñàkk laa tëral wóorul. waa ma ne. waaw uy ma. Mhm. léegi daal su mu nekk nii daal. waaw bàyyi ma yettal ci képp koo xamante ne ne téléspectateur nga. Mm. waaw ñun ñi ñuy seetaan. waaw ñu ngi leen jox cookies yu baax yi. waaw dama ci yàkkal sa benn doom bu la fonk. waaw ay ay ay solo mu baax mi. ay solo Kares. voilà naa ko bëgg moom tam ku fonk la. naa ko mbokk ndeyam Sodo Bousso. bëgg naa ko ah, ak euh, Ndeye naax Thiam démb anniversaire am. waaw ñooñu ñëpp happy birthday. voilà xale yu baax yooyu ñu ngi leen di ndokkeel bu baax. ok merci maman on te retrouve dans quelques minutes. ok d'accord ci wareef bi merci. ok au revoir on en profite pour souhaiter un bon anniversaire à Khadijatou euh, euh, Kodou Ndiaye fille de Diary ak Youssou Ndiaye depuis HLM 1 Fakoli. Hmm. looy tëjee tey yeewu leen bi kon. waaw xanaa di leen remercier. merci et tamit euh, xanaa ñu demaat wala. ay tu demaat waaw pour tàggoo. voilà merci à tous. <laughs> passez une bonne journée bonne semaine de travail fàkku li la ñuy jeexalee tey ñu dem Casamance. waaw ayca aw ba ca ko <laughs> <laughs> voilà am micro bi. merci Alfie. à demain. Baby boy. Baby boy. Baby boy. Baby boy. Njuni pare pare, aunu pare pare, kawanu kabale, kejanta napi, fitra irimi, lujomono jukora, baby boy. Pare pare. Baby boy. Yeewu leen jeex na ba pare. Baby boy. Yeewu leen jeex na ba pare. Heba. Kii tamit mu mën a way. ñu dem Heba Heba Heba Ibi buy yeewu leen jeex na ba pare Ibi buy yeewu leen jeex na ba pare